cinq centrales yi bokk CSI muy CNCS UNSAS euh, euh, CSAF CNTS FC ak UDTS ñoo bokk def défilé bi di ko def nag comme chaque année bu ñu paree bu ngoonee ñu dem seeti président de la République jox ko kay de revendication bi ci lay tënk lu yaakaar ni moom mooy soxal liggéeykat yi tey euh, yooyu ci nekk nag yu ci ëpp mooy problème mu dund bi maanaam njëg yi gouvernement bi def nay effort wàññi nañ électricité wàññi tuuti ci courant bi wàññi gaz bi def ay effort ci booy loolu dañ koy rafetlu waaye effort yooyu ñu def dañuy gis ni boo demee marché wala prix yi en tout cas njëg yi dans le dafa dafay dafay lekkloo da koy wan ba du feeñ wala mu dépassé ko donc ñu ne nañ xalaat dañ ko wax président bi seet nan lañ mën a xalaatee pour réguler prix yi pour que yooyu nit ñi mën a mën a toog mën a am am nu ñu dundee am na aussi ay këru liggéeykat yi yoo xam ni droit yoo xam ni patron yi dañ koy jalgati dañ lay liggéeyaloo quelque fois duñ la fay ca àpp ba weer dee du ñu ne dawloo bañ la fay wala ñu la naree fay fay bi day yéex a ñëw wala du mat beneen bi duñ la cotiser sa retraite ak ak sa caisse sécurité sociale yeneen yi mooy bëgguñu nga am baat ci biir kër gi bëgguñ ngeen fal seen ay représentant bëgguñ ngeen am syndicat te loolu di ay violation convention la bu travailleur bëggee gis patron bi patron bi lànk loolu violation convention 98 yooyu aussi puisque démocratie ak dialogue social la ñu dañ ko war a jot ci borom réew xam ni paix sociale bu ñu ko naree def il faut que patron yi change de mentalité ndax këru liggéeykat patron bi moom mooy actionnaire moo ko moom waaye bu mu jàpp di propriété am rek lu ko neex la ci def. parce que dialogue social Sénégal dañoo constaté ne dialogue social foqati la dañoo jël suñu daw di ci topp loolu war na jeex te loolu tasaaroo mouvement syndical bokk na ci li ko waral ñu bëgg nag à partir de cette année ñu fexe ba accord yi ñu signé woon yëpp ci secteur yëpp éducation santé collectivité locale ak ci secteur privé bi accord yooyu ñu respecté ko ñu toog waxtaan parce que dialogue social bi du accord yi rek euh, euh, passif social bi du accord yi rek gis nañu aussi régime indemnitaire fonction publique régime indemnitaire nañu ne tamit dans bien des cas état bi si s'agit de de de sanctions négatives les sanctions négatives dañ ci gaaw jot mais sanctions positives yi dañoo gis ne dafay des da ngay gis inspecteur inspecteur de l'enseignement bu jàll inspecteur toog lu mën ñetti at biñ ko classé ci inspecteur loolu it bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne autorités yi war nañ ci taxaw